involvement in decision-making process su ma waxee lii I don't only mean in politics or everywhere mm-hmm. why are women and youth not ready to make decision on their behalf what is the root cause oh tey de Fatima lu mu andi neex na waaw most of the time when you want, ne come we want to be involved in the decision making process dañ bugg a nekk sa table bi yaa ngi understand But boo suñ all ooyee right? gain mm-hmm. Most of us run away. Like, okay, we are looking for somebody to represent us. Mm-hmm. So you don't make decision on your so, so you don't make decisions, sir. Ah, ah. So people make decision on our behalf. They don't have some problem. So Madam mm-hmm. I come like the root cause of that is at home. Mm-hmm. Because even at home, women are used are neglected when decisions are made. When you day by we make decision on our own even su ñoo dem school sa su ñoo jàng dangaa bëgg a def science sa yaay ne nga def arts nga bëgg def arts ñu ne nga def lii so you're not doing it because you love it you're doing it because your parents asked you to do it mm-hmm. so suñ mënutee make decision on our own suñ biir kër yi sax nga xam ne ñoo def decision on our behalf ñu oñ ñu ne ñu lii lañ la xalaatal lii nga war def mm-hmm. yow duñ la bàyyi nga xalaata sa boppam so how do you expect us as youth or women ñu dem toog si table bu mag bi ne we are making decision fu ñoo dooree ak fu ñoo jekkale so it's important parents yi ñuy bàyyi nit ñi like we can make decision on our own we only need their guidance yes you know ñu def lii ak lii ñu oo ñu ne ñu ne okay it should have been like this or su meloon nii dina baax rather than saying no you cannot do this mm-hmm. xam nga man maa naa fayal lii soo ko buggee nga dem def lii it's totally not okay mm-hmm. So suñ mëntee make decision on our behalf ci kër bi no we cannot do it somewhere else dañoo taxaw di xoole rek wana lu tax ñu ba dëkk yu bari raw ñu moo nekk ne dañ dee bàyyi seen xale yi ñu def loo xam ne dañ ko bugga ay sa man su ma def lu ma bugga soo ma si fayutee sax dafa ne maa ngi koo def di kontaan the doy na ma mm. but if I'm doing it because of somebody else or people start then they compare at somebody else like this yeah you this medical doctor be mm -hmm. so you have to be like that medical doctor think man man you buga if you way mm-hmm so the woon damaa nekk di forcer pour nekk kooku noonu fu mu nekk. te mënoon na ko. te mënoon so they should really involve us in decision making table So soo nekkee kër ngay laajte ku nekk loo bëgg nga take ñëpp xale bi ak ok yow lan nga bëgg a nekk mu ne la xaw ma de ngeen ko waa dama nga na nga xalaataat ko. even sax soo ko mënutee soo ko mënulee aw tey yéen ñëpp sax oo ko moom kenn. parce que mën ngeen a toog yéen ñëpp sax mu rus laa wax ne lii ak lii ak lii. waaye soo ko ooyee moom kenn ni ko ah yow de dama lay laaj lan nga xalaat pour planal sa bopp ak lii ak lii moom su boobaa dina dina mën a waxtaan lan moo nekk si moom su fekkee lu baax la nga digal ko ne defal nii ak nii ak nii. so nga yokk ko waaye daal bu ko ne man dama bëgg a nii nga def ko nii la nga def ko. like I would Mm. How many of us, like ask our children, like from five years to eight what to eleven, what do you want to be? What can you do? Mm -hmm. And support them. Mm -hmm. How many of us do that? Like think about it. In they haven't you young eighteen or nineteen, like so for how many you know, what do you want to do? At that mm-hmm. point, young what is going straight to law and longer decide. But you were there thinking of what to do. Young it's laughing, laughing because you don't know what to do, you don't know what you like, you don't know how to do it everything you were doing was made for you. Mm -hmm. uh, yeah, um, I was, I, I, I was uh, don't suggest that uh, I think uh, this is more than a woman and youth issue because children are involved. Mm -hmm. So I'm going to suggest for every family, mm -hmm. or for every young family to start mm-hmm. uh, a democracy day right? <coughs> if you're married with some kids, it's a day. Maybe it's one day when you're all free at home. Yeah. I mean, make a decision making day, sort of. Reflect on some of the things, how you how you how you want to run your household. You make a suggestion and listen to you, even your kids. I mean, we've seen some people who are doing this. I have a friend who is an activist. He has introduced wow. that with in her family, and, and she told me it's really working no, for them. Um, <laughs> um, no, I'm not grabbing. I, I, think this is work because I mean, the, uh, even the children in the houses, the women, the youth in some families might have some good friends, might have some plans in that, mm -hmm. they might not want to do without seeking approval or confirmation from their parents? Mm -hmm. But do they have that access with their parents? Mm -hmm. Now, some parents are so busy, they don't even have time with their kids. They don't even involve in yeah, yeah. yeah that's a decision that I, I want to make as an adult, but sometimes I need the opinion of my parents or the opinion of my senior yeah. brothers or my senior sisters. Mm-hmm. So that time must be given. So you can dedicate a day and call it a you know family like, democracy day. And you talk about honestly, about this. Wait, wait, um, this can this can lan mooy problème bi ah suñ maam yi ah jigéen sax duñ leen a di seetal boppam. dara oh. góor ñi sax tane nañ ah dañ laa gis yaa ngi play football play football ëllëg suy wàccee ñu ne laa ne la football andi la wala nga war dem school sax ñu ne la jigéen bi yow doo raxasaale mbool wala doo bale balaa ngay génne nga dem góor bi su xëyee dem. ayca loolu noonu. soo loolu ah, it has to do most Why since when we let's stick to this topic like uh women and youth involvement mm-hmm. Yeah, I understand so then, gis ne comme yow yaa ngi magazine, si yaa ngi nekk si kër mm-hmm. ah luy mujjee dégg rek moo nekk ne final decision bi Yeah, I understand mm-hmm. man su ma nekkee si like all the time the only thing ma yëg moo nekk lii nga war a def lii nga war a def final decision nga bugg a def thank you naka lay xamee ne naka laa ko war a defee but like if you guide me what do you wanna be What, what do you want to do? Mm -hmm. Or nga like man, what is your idea on this? I mean, small helu fully set. The correct man, yun naman ang like, ni ati nga ko wara wehe mm-hmm. So lum yaga yaga, di na ako mid, di na mo na stand my ground and make decision my And you can focus on all that because ma, ja si Jaja fala. yeah. Uh, for bringing this important topic. Mu nekk topic bu nga xamante ni si society def si am trop trop. Mm-hmm. Def si am solo trop. malay uh, ma lay wax ne rek rew mi suñ bugge mu dox lu ñoo jël na leer. Audition should be transparent. Of course. Audition should be all in exclusive. Whosoever is involved um, should be uh, you know, notified. Um, let me just also start and congratulate the Sahel Network TV um, because I've showed most of the decisions that they are taking should be all in exclusive. People will be consulted and, you know, we give information. I think um, this is how every reasonable and, and professional institute should operate. Um, as, um, AFA, AFA, we have a problem. There's a problem, yar bi xale yi dañoo yàqu mag ñi dañoo non xale yi dañoo yàqu loolu moo tax sax da mag ñi dañoo xam nga rek dañ tayal dañoo tayal because soo gisee fii tey am na yeneen xale yu bari soo leen ooyee pour waxtaan mm-hmm. amul sax kàddu yu ñoo waxtaanee mm-hmm. moo tax ñun ah, dangay gis ne sax pour ni si media sax daf dee nekk problème because xale yi amuñ amuñu ñoo waxtaanee. Mm-hmm. dangay ngay deseet sax mun na nga def ma ne ko maa ngi feeñ nakam yaa ngi kuul cëppa nga ma si loone ngi baax nakam nag nii <laughs> yooyu wax yooyu nga mën a daanu responsible even our introduction the way people introduce themselves is not <laughs> responsible waxi xamat yu nga mën ne ñu ngi koo wax kooku nag boo ko oyee si waxtaanee kay day jëfe trop waaye nag waajur yi da war a góorgóorlu mm-hmm. ndax boo amee sa doom ah, lu koy defar yow si nga bokk te soo ko defaree mu baax Ya si gën njëkk a kontaan. moo mhm. tax décision boo jël because dee du tago, moo tax saa yoo jël décision da ko koo raxelaat nga boole si sa njaboot nga boole si ñoo jigéen wante bu ko defee ngeen mun ko defandoor ndax dee dafa mun nañoo wax any time. te mun nga fi bàyyi si ay doom ñu war jël responsibilities if they did not know how to take decision daf lay nekk problem loolu nag mo am mo am very sorry pour divert topic bi waaye almost is the same part election sa lo mo si am. ñun xale yi we so reluctant that we are not involved in politics we are not involved in voting. Of course. we are affected most. In addition, that um, the, the people of old age take, mm-hmm. uh, it reflects back to us. So more that um, they to affected, the gurgul, the def lu ñu war. mais ne dogu ma la sax waaye gis nga even jigéen ñi nii ñoo xam ne dañoo sëy sax um, election ñëw nii da ngaa dégg ñu na sa sa jëkkër yi di leen wax ne ne soo saanu di tey kii baaral ma la aaxa. Mm-hmm. yaa understand loolu da nga bàyyi ko community national. loolu loolu loolu it's rampant. te soo waxee ñu a déggal. moom lu am la. xam nga dafa wax ne islam def ne jigéen da war a déggal sa jëkkër ma ne ko loolu lu am la hmm. waaye dafa am gisoon nga xam ne soo koy def loolu it based on consent is based on all inclusive mhm. ñu fa bokk yëpp dañuy soore ñu jël seen xalaat mhm. ndax yow looy advocate pour ah, nit yi waxtaan loolu lu am solo la xam nga boo waxtaan doo xam am na problème yu am si kër yëpp ñàkk waxtaan moo ko waral mhm. am na problème yu am si liggéeykaay yëpp ñàkk a waxtaan moo si wax ah moo ko waral moo tax soo jël gisoon bu ne whether you're working in an organization, whether you are in your family, whether it is state, state affairs, call the people involved, call all the shareholders. And make decision. And make decision. And that everyone will feel himself within the, the, the system. Mm -hmm. And wow. that is ah. what is going to create unity. That is going to create, uh, you know, pushing an agenda to go forward. So and listen, okay, you also have a small problem, man. So how much time is Lumaneka? Because you may mind is every day, man. You solo, man. You know, while man, you and the lake, you pull your man. xëy na leneen laay xalaat fekk xamuloo lu nekk si man yaa ngi understand nga dem toog si table bi ne waaye kii moom soxlu li ak li soxlu saako maa si këram parce que mu ngi soxla xamuloo na lu ma soxla dama ko aabal nga dem make decision on my behalf fekk ma yow xëy loo wax man soxlu ma loolu sax li nga ñaakaa wax man loolu mooy suma priority xam nga so most of the time if you make decision on our behalf as women you make a great mistake so involving will be very good. And wow. to involve us, it start, it has to start at the grassroots, and the grassroots is at home. waaw ba ma jaar fa rek ñaan gars yi ndax man moom xam naa dañ ma dee déglu ba pare dañ ma dee bégge bu baax. Mm-hmm. may ñaan uh, kilifa yi ak xale yi tamit. xam mm-hmm. nga mak. dafa war a yërëm xale. Mm-hmm. waaye xale tamit dafa war a respecté mag. te loolu bu amee rek waxtaan bi gën a dafay gën ndax boo gisee problème yu bari am mag ñi yërëmuñ xale yi. xale mu respecté guñ mag ñi. te xale tamit uh, dafa am lu nga xam ne koy ya liggéey sa bopp. soo bëggee ñu teg la seen place yi yaay respect sa bopp respect ñu la fa teg. respect ay kilifa. parce que am na mag ñu nga ma da dangaa ne ñu naan la ah man mag naa léegi à ah, gannaaw itin lu ma leen lay def I have the right to think I have the right to do this and that and that yow yu imposing thing yu nga ma ne sa kilifa bëggut ko kon si kaw loolu dangay fexe. respect ko eh, waaw ku yar sa bopp balaa mm-hmm. moo daan kene yow lay jëkk a daan. du wér. so if you raise your kid like that. Mm-hmm. come on noonu la moo mel. Yeah. When you raise your kid to be responsible, to be accurate, mm-hmm. hanga to be disciplined. Lu mag ba dilaw ne mangi eti yes ilawa. Rafatal lenen sa. Come on, lu malawa ne I be involved children in decision making, help them to know how to make decisions. During am time we no support ako dapat. At 18 years you'll be thinking of something better. Um, dama you'll be thinking of how to better your life. Dama sedan bene documentary ba mo jekli bo. Dama sedan documentary. Documentary eh, um, indication be moy the decision you take affect your whole life. Of course. There yes. are people that are in jail just because of just one decision. One decision. amuñu ne ñoo advice perhaps they don't even seek for advice they're doing it based on their own consent te lu baaxul. Omar ku ñoo ñoo seetaan nii rek. ñu laa xool nii rek la wax décision li nga war a def mhm. di nga dem ba place boo xam ne da ngaa jàng doo xam looy soo yore da ngaa topp ngelaw ba rek <laughs> ko bu baax. oh loolu neex na. waaw am na solo. Thank you.